solo waaye nag ñi toog ak ndaanaan ci biir ndaanaan comme ni ko sénégalais ni ko sénégalais xamee rek <laughs> ñu bàyyi ko rek mu daal di nuyoog suñu mbokk internet daal di présenté boppam ma ko man maa koy mu présenté boppam. bàyyil tooñ nga am ay ndaanaan ci biir ndaanaan man may man may taalibe bi ay ndaanaan waaw yow da baax da baax di la nuyu di la siyaar di siyaar mbokk internet yëpp ah di nuyu àdduna Sénégal di leen wax jërëjëfat Serigne Saliou di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké sunu sang bi mu yàgg fa loolu te wér tey ñaanal Serigne Cheikh bu Serigne Saliou Mbacké ah mais ñi ngi ñaanal tamit Serigne Saloum Digal Thioune sunu sang bi nga xam ne moom ci moom la ñu jokk di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di ñaanal sëñ Béthio Thioune jaamu Serigne Saloum yërmandem gën a sotteeku sunu jëm yi di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di di la nuyu yow waaw comme que nee na ma président sama nag man la The King kon bi <laughs> mu daal di présent dañu fekk ko fii nga xamante ne moo di ànd mu ànd ak daayiraam ñu bàyyi ko nag mu daal di wax ay quelques mots rek ci màggalub Serigne Touba bi nga xamante ni fii si Touba janatu ah, la ñu nekk nii waaw di sànni quelques cadres. ndeysaan waaw ñu ngi janatu euh, pencub sëñ Béthio sama kër la ñu dal moom sëñ Xaadim comme ni nga ko waxee mook sama yaay ñoo bokk ndey ak baay may cantaakoon di taalibe Serigne Béthio taalibe ba pare nag ci am mbégte bu baax di sant bu baax ci doon gi ma doon taalibeem waaye tam ci bésu sëñ Touba bi nga wax moom wax ci wax ci dadul yomb li tax du yomb mooy boo fi doon bëgg wax ci bésu sëñ Tuubaa bi doo fi jóg waaw sama tons bi li mu wax ak yow tey mënoon naa wax triple bi donc euh, duñ ma lu dul sant sëriñ Tuubaa ci bés bi ndax bés bi dafa nekk bés boo xam ne sunu njariñ la ñun ñëpp ma ànd koog suma waa daara ñu jëf ay koppar yu bari fas yéene benn jàmm ñu comme ni la ko sama nijaay waxee ñun xamuñu woon na la ñuy màggalee waaw ku ci mel ni sama classe dama daan ñëw màggal Tuubaa jour ba jot xam nga ma sañ sama yére bu rafet dem jumaa ja sànni fa fukk juróom raay ñëw ne màggal naa lekk ci ci lekk yi dem ñibbi waaye Serigne Bacso mu ñu Serigne Saliou booleel moo ñu yee ba nga xam ne xam nañ lan lan mooy màggal donc euh, dañuy sant ci bësam bi nga xamante ni tey dem nañ ñun ba yeewu ci ne bés bi mooy mooy sunu njëriñ àdduna di suñu njëriñ alaxira ba tax na duñ ci sonn duñ ci tàyyi duñ ci damm barke Serigne Touba luñ ci am lañ ko ciy def ba tax na kenn ku ci nekk rek waaw xam nga daal sa dëgganteeg Serigne Touba la toll waaw ku xam nga sa dëgganteeg Serigne Touba. xam naa ne doyul sax waaye yéen moom fu ngeen jaar yoon la di ñaanal nag seen site bi ah ñu ngi leen ñaanal mu mu jëm kanam daa ngeen raw bépp télé bu fi jaar a bëgg nañ bu baax a baax a baax tawfeex ayca